asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu macha allah saatu <laughs> ñu ngi leen baax baax nuyu waa euh, waa alfurqaan <laughs> mais lii moom bu mu jaaxal kenn lii nii daa yomb te ñoom seen tarixa yi daa yomb quoi jiite ko dafa yomb yow tarixa boo xam ni tëraloo masala maanaam joxe woo dars tëraloo bind amul benn masala booy leeral yow lañ yaa fi mag yow lañ <laughs> kay ku ku jiite ku ne mën na ko jiite <laughs> lii si gën a ndaw de yàlla xam ne lii moo si gën a ndaw nañ dem ba si kanam rek ah yow duñ la laaj masala yow daal del wax waaw leen leen góor indi leen addee ji yow de am nga Pastef jàmbaar nga loolu donc mooy tarixa bi gaa yi ñëw àndoo dem dem kañ nekk ca kaw noonu la fa nekk loolu rek mooy tarixa bi <laughs> loolu kay c'est facile c'est facile dafa yomb xam nga bu dee sunna moom ab bind pour nga tëral ko wala ngay firib xadis wala benn aaya ah faaw nga am loolu làmboo de ndax loolu ñoom kan loolu mooy seen i bagage ay firi aaya firi firi li yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàngale woon firi firi kaamil bi di leeral jaam yàlla yi ñuy jariñu macha allah mais ñii yaa fi mag yow lañ yow de sopp nañ la yow lañ gëm jeex na loolu la donte ko xamoo dara yaa fi mag rek xamoo dara dara dara yaa fi mag nga jiite mooy problème dafa yomb di moom kay li kay nii la war nii la mën a demee nag c'est comme jëkk a jee jiite ay million xaw ma million ngi nit xaw ma toll kii war naa mën a jiite de xam na ko war naa mën a jiite ah, na daal de fu mu jiitee kii a jiite ab ab kii ab ab kuréel kii war naa mën a jiite waaw ah, war nañoo mën a jiite war naa mën a jiite de macha allah yàlla yàlla sàmm leen leen jaar baax baax waaye ñii daal maanaam li moo ci gën a ndaw waaw lu pire li mi ngi ñëw incha allah lu rëy dina ngeen gis lu gën a pire lii parce que teguñu ko ci ay si ay si ay teguñu ko si alxuraan teguñu ko ci sunna affaire yaa ma neex la benn ñoo sant nii suñ maam seex la woon ñu kii nii nga toog jiite xilaafa gi loolu rek la ñu ko ci l'islam quoi ça avant colonialiste colonialiste yi ñoom ñoom suñ ceddo gi ni fi nekkoon léegi mooy affaire yi rek moom lañ def si guides religieuses yi quoi loolu lañ def foofu pareil pareil benn la rek. asalaamaaleykum waa sëñ bi ñii wax moom euh, boo jëlalee sax fitna ji mën a taal nga xam ne jamono yi ne mën nañoo wax luy taal fitna comme audio waa jii di tudd sëñ Muntaxa Muntaxa boo jëlalee loolu sax waaye la ciy nekk ci réer rek moo leen njëkk a xam nga dégg nga waa ji muy jéem a critiquer <coughs> euh, ku mag toog na xam ne yoon woowu lay critiquer maanaam ku mag yaay doon xalifa waaye waa ji baywut xel ni bi alxulafaa ul arbaa arrachiduna jàlle ñi doon jiite l'islam te moom ñooñu ñi mu wulee na kontar Euh, ñi toogaat ginnaaw Seydina Aliyu noonu nan lañ doon tooge maanaam nan lañ doon tooge ay famille ñoo doon toog di jiite état islamique ku bokkut ci famille boobu doo mën a falu ba famille boobu daanu beneen famille yéegaat seen nguur gee nekk Arabie Saoudite muy nguur wahabi nan la ñuy tooge benn famille rek moo ne ci kaw nguur ga bu fekkee fii ci Sénégal lu ñuy tudde xilaafa am na fi ku mag toog fale ci arabi Saoudite lu ñuy tudde imaara am na fa ku mag ñu la yow yaay baaboog mamlaka ku mag ñu ne la yaay malik yaay malik te malik boobee seen borom xam yaa nga xam ne ñoo ci réew moom la ñuy jaayanteel nekko ko loolu nu digal nu def loolu tere ñu bàyyi ku ko ci neex mu xëy folli la fa nga nekk poste ba nga nekk borom xam yi duudoo fa ne ñi nga xam ne dañoo wari poste wala ñu ay xëyaat nga xam ne moo jiite diina ji ñuy jaayanteeg moom ala sama wa taa comme ni ngay jébuloo ci sëb sëriñ ñëw ne ko boo ma digalee ma tere boo boo ma bàyyee ma boo ma digalee ma def boo ma bàyyee ma tere boo ma bàyyee boo ma bàyyiloo ma ba lan mooy différence su Moustapha Sylla mu dem sëñ sëñ Muntaxa ne ko jébul naa ci yow boo ma digalee ma def boo ma bàyyilee ma ak Ibnu Baas mu dem ci benn buurub Arab Saoudite ne ko euh, jaayante na maa yow euh, boo diglee ma def boo bàyyee ma tere kenn ku nekk am nga sëriñ Ibnu Baas ak Useymin ñoom boor bàyyi seen sëriñ man sëñ Muntaxa ma doy ndax buuree moom buur yooyu ñu jébul man doyuñu ma euh, ngu bu fekkee waa Touba par famille la ñuy toogee comme ni ko waxee moom sëriñi sëriñam ya nekk Arabie Saoudite moom nan la ñuy toogee par famille la ñuy toogee kon loolu defe naa ne bu amoonum xel du ca du ca dugg ah, ànd ak ne li mu wax ne ñooñu jàngalewuñ diine wala yu mel noonu loolu itam amul defe naa ne sëñ Muntaxa yaakaar na ne jumaa ji gën a mag ci Sénégal wala boog ñaari jumaa yi gën a mag jenn jaa ngi Touba jenn jaa ngi Masalikul Jinaan eh, waxuma la sax senegal waaye ci réew yu bari sax nag yu takku bu dee wàllum njàng yaakaar naa ne kaamil boo xam ne loxo lañ ko binde te mool ko fii ci senegal boo ko toppatoo boo muyut euh, da gis ne amorite ko bind wala yu mel noonu daare alxuraan yi gën a mag da dem xel koom baa nga dem njaareem baa nga dem Touba la daar di daare kenn xamul nu mu toll te loolu misaal loo ay dëkk murid yëpp mën nga mën koo jël lii nag damay misaal rek ci këri tasawuf yi ni ñuy liggéeyee ci lislaam ba léegi ëtti xam-xam yi foo dem jumaa ja toujours xalifa ba dafay teg ku mel sëñ as jaxate warlul ko yemi warlu ngir ñu mën a jàngale lislaam ànd ak ne daara yi nga xam ne wasaare nañ ko ci euh, Sénégal fu ci mel ne xel koom nga xam ne mën nga faa jàng alxuraan ba mu mën nga jàng fa sa diine ba mu mën boole ca yar ñu door a tàggoog yow te loolu misaal la ci waaye daara yu jeex lañ tarbiyee la jàngal diine jàngal la alxuraan sëñ Murtala gis nga al azhar ba Mamor Mamor mi ko ca wuutu gisoo liggéey bu rëy bi mu def ci wasaare xam-xam ba sax université bi nga xam ne moom la si Muntaxa di waaj a taxawal yaakaar naa ne liggéey bu mel noonu ci wasaare xam ak alxuraan wahabi yi defuñu asaka ji kon kuy wax ne ñooñu jàngalewul da ngaa xamul li xew jiit nekkub xalifa ne tekkiwu ne dangay ngay tëral ay masalaak yi demee noonu yaakaar naa ne Abubakar Sadiq ba mu jiite alxilaafa islaamiya itam mën naa am dawut dem di tëral eh, eh, ay leçon yi diine kenn ku nekk ku ñëw mu lay tëral waaye fexe ba ñi jiite nga teg leen ci aw yoon loola lay jëriñ eh, waaye nit la koo xam ne daa waxee mbañeel waaye waxewut am xel waxewut xam-xam ànd ne wax juy taal fitna la wax na sëñ Muntaxa lii mu ko ko Sénégal bu doon yem ci yow sax mu tane ndax waaye ji moom bu taxawoon ci mbedd wax ko moom xam naa ne nëgëni ñi ñi xam ne kee moo ko wax moom nëgëni moom xam naa ne mbiram réglé bu joxe woon adresse am itam naka noonu waaye day am gaa yoo xam ne ay la ñuy doon ñoom ñooy taal fitna ji ba noppi ne yem nag te bu fitna ji tàkkoon nag euh, mooy moo mooy dàq daw kiwél toujours fitna ñooy jiite coow la ak ñooy ñooy réyu laam bu tàkkee ñooy gën a ñàkk jom ñëpp li fi waa ji defoon rek la mooy ki fi njëkkoon saag si mun taxa mujj di jégguloo ko làqutoo ko def dañuy wax seeni wax joo xam ne ku ci yoonam niwut mën na cee gaañu bu ko defee nag ñoom benn du léeg sax duñ nekk Sénégal nga xam ne bon mën na leen a yeexadal waaye dañuy wax loo xam ne day jaxase jullit ñuy xeex ñuy corante ñoom ñu ne ci seen jàmm euh, ki nga xam ne moo doon wax ci audio bale ci kaw kooku itam la wax lim ci waxam yaakaar naa bëriwul ndax ab saagante lañ ko tudde mais du ab saagante dafa am ñoo xam ne dañoo wuuteeg ngir mi ne Sénégal muy almadhabul ashari ak at tasawuf dañoo àndut ca loola teña te loolu mbirum ngir la maanaa wuuteeg ngir la ba muy am ñoom juddooguñ ñoom Ibn Taymiya jiitoon na leen bind ay mujalladaat te da daa mujj jóge fi tasawuf ak almadhabul ashari gën a yaatu ña ko jiitoon it naka noonu kon mbirum ngir la yow nag bu fekkee ki nga wuuteel gis-gis ci lislaam mënoo koo nangul lam ne waaye yow da ngay agsi rek ne ko yow loola yow nekkoo ci diine wala yéefar nga wala ci biddaa nga ne xamal ne jamono yi ne mën ngaa taal fitna ndax nit mësu koo def am ndam fekk koo wuuteelu ngir nga ne ko yéefar nga nit mësu caa am ndam te foo ko defee fitna tàkk nag muy senegal muy faneen ñu bàyyi xel ne mbir mi du mbirum senegal dong mbirum àddina bi ak wahabiye ci boppam amul fenn fu ngeen ko dégg ci àdduna bi foo xam ne amul rek problème ak ñam nekkal fenn foo leen dégg am nañ problème ak ñañ nekkal kon loolu ab laaj la lan moo tax fu ñu nekk am problème ak ñañu nekkal loolu nag bu fekkee moo indi fitna fii ci senegal ay nit bind ay téere sun mag ñii ñu àgg ci di leen tuumaat di jaar ci ay tur ci ab téere naa wane ne ñooñu aqida ba ñu yor du aqida bu lislaam aqida la boo xam ne aqida bu sax kéefër la nga xam ne ku ko gëm euh, te xam lay lislaam yam indi moom yow yéefër nga dama ne loolu ku ko bind ci téere ba noppi ñu naan waaja daa ñëw ne leen dun yi yi ñoo war indi lay yow waratoo wax ku ak si ne Cheikh Ibrahima Niass ak Cheikh Omar Foutiyou ak sa Ahmad Ahmad Tijaani nga def Sénégal yi bind ci téere ne ñooñu lañu fas aqiida kéefar la ànd ak ne yow fa nga wuuteel ñoom weesuwut wuute ngir la nga leen di tuumaal tam amul nga xam ne la nga doon wax sax bu amoon sax ma ne son na ko bu fekkoon ne la nga wax am na maanoon na waxe waxee ne nu gën a rafet noo xam ne xekk ma lay doon eh, dana indi langage boo xam ne des na ko mën a déglu doonte xam nañ ne wuute nañoo moom ngir ndax ñun bañu ñu ku wuteeg nun pas-pas di niqaas ak nun ku ak seen ñàkk teggin ak xamaaqa mooy problème bi waaye mënoon na ko waxee bu fekkoon ne noonu bu loolu la gëm sax mënoon nay niqaas na neen doonte sax na duñ ànd ak moom waaye ñuy niqaas ak ñeneen jàmm moom mën a am waaye aksi rek euh, àndoog xekk ma àndoo ko mu xel aksi daal ne loolu pas-pasum nangam la ña yaa ngi ñu ci ngeen di waxe noonu ñeene ci internet ñeene ci mbind yi ñeene ci Facebook kenn ku nekk di wax tasawuf nii almadhab al ashari nii réew moo ko def muy Sénégal muy mu mën a doon da nga taal fitna almadhab al ashari yi waa ji bind na téere comme ni bindee ci tasawuf ni la ci ashari man téere bu ci ne gis naa ko bu ci ne nam ca waxee koo ko waxal même bu fekkoon te niwut ci yoon sax du la faale ànd ne la muy wax sax daa amul moom xam nga sax mbir mi du du question ku ne la diw du nii da nga naan agsi wut gars yi agsi ne diw du nii de gars yi dañu agsi wax lu du dëgg dañuy agsi ne lii ngeen fas ñun fasuñu loola bu fekkee ne ñëw dangaa ngaa ñëw sosal nit loo xam ne moom néew la moom la fas yaa nga sukkandiku ba ne moom nga fas itam ku ko xool xam ne yow da ngaa tëdd lis maanaa da ngaa topp sa bànneex wax loo xam ne yow mi ko toxal yow ci boppam sax xam nga ne du dëgg nga bind ko ci péere di ko wasaare ngay agsi naan da ngeen a war a na li mu wax nan lañ koy weddee xanaa booy weddi da ngay weddi kuy xam-xam bokk wala koo xam ne na muy waxee kus mën a kooku moo jar toogal ci taabal waaye koo xam ne ay saagale ak kooku boo koy weddi moom nooy nooy def euh, loolu nag boo amee bu fitna ji tàkk ay gone gëm loolee gëm ne nun kat danoo niwut ci diine danoo yor pas-pasu kéefër gone yooyu gëm loola jàpp ne ñun moom ay yéefar la ñu ñu woo ci lislaam ñuy waxee noona xam nga ne loolu bu amee ci réew faaw fitnaam képp koo xam nag booy wax doo wax dëgg danga naan rek ay nit ñuy saagante lañ ay nangam ak nangam te xamoo ne te doo jàngat problème ba fa mu tàmbalee jàngatoo ne problème ba ci saaga la tàmbalee aw saaga mënut a weesu. kilifa ak diine gu toll ni Cheikh Ibrahima Niass wala Cheikh Omarul Fouti euh, wala ku mel ne Ghazali nga daa jéeg bind fii Sénégal ne ñooñu seen pas-pas la boo xam ne ak kéefër la mbaa yu demee noonu loolu ku ak sew saaga yaataal fitna fitna même yéefar boo demoon ne ko yow yéefar bu bon nga yow doo ko dugal ci lislaam bu cay dugg itam ci ci lay dugge waaye du yow ànd ne sax kee la muy wax sax daa amul moom maanaam yami toxal day tëdd liis toxal wax jàmbur yoo xam ne dooy waxam diw wax na nangam boo demee doo fekk di wax ko dagg teg sim nit euh, wax tappale tappale ba ba ba wane ay pas yoo xam ne loolu sax daa ko ci téere yi ñam yi kon moom daa tooñ lis ko waroon lis leen waroon li li nga leen waroon wax mooy ñu tuub li ñuy wax maanaam tooñ gi nga xam dañ ko tooñ nit ñi wax lu wax wax wax wax ne dañoo fas loo xam ne fasuñu ko képp kuy wax ci problème bi da war ne na wahabi yi tuub tooñ giñ tooñ jullit ñi lii nag du mbirum Sénégal dong àdduna bi yëpp la wahabi yi minorité lañ ci àdduna bi réew moo dem lii ne Sénégal moo fa gën réew yi gën a bari wahabi yi daanaka man defe naa ne Arab Saoudite laa xam ak kii yoo xam ne majorité lañ fa minorité lañ ci àdduna waaye fu ñu nekk minorité itam ci xulóog ñañ nekkal lañ nekk ci àdduna bi yëpp nag noonu lañ fa mel léeg-léeg sa xulóog bi weesu fii nu ne te yaakaar naa bu ko nee dana ko weesu léeg-léeg mu àgg sax fii nu toll nii te nit ñi di ko jàmbat ñu borom xel yëpp tiit ndax xam nañu réew bi jëm fi ne baaxul bu yëfi kon nii dañ ko weesu te ay waxaab yi weesu nañoo eh, ay nit fii ñu toll te buñ leen seetaanee bu ci bu état bi croisé baraam itam dana dana weesoog nun fii eh, du mbiri ay ay ay wuute pas ak yooyu leneen la bu fekkee Arabie Saoudite ga nga xam ne moom Euh, fala cosaanoo mbaa boog lii ne Sénégal ñu bari fa lañ jànge ñëw di ko fi jéem a wasaare ñoom seen bopp ñoo dem ba ne te loolu maa maa ko dégg waliyu laa wax di wax ko ne li tax nit ñu bañ ñu euh, mooy takfiir gi ñuy def nit ñeeg yu demee noonu fekkee moom ci moom dem na ba ba ne di ci jëli matuwaay ngir loolu deñ kon sëñ jii di daa war a wax ne na état du Sénégal jël ay matuwaay ngir loolu dañ Sénégal ndax fam cosaanoo ci boppam ña ngi ci ñoom ña ngay xalaat nuñu ca jëlee matuwaay loolu duut fa am ndax xam nañu moo tax nit ñi bañ leen te loolee tax arab saudi naa nit ñi dañ koo bañ ngir gis ne li muy tuumaal nit ñi ak ak ak kéefa rek ak yeneen moo tax nit ñi bañ ko wahaab yi ne senegal tamit boo gisee ñi ñeneen nit ñi am am ak ñoom problème loolu rek ko waral kon nit ki nga xam ne nag loo xam demba ma demba gën laa xam demb ginnaaw ñoom seen bopp dem nañ ba xam ne looloo tax ñu am problème ak nit ñi kon ñoo ko waxal seen bopp jëru jëruñoo jéem a layal problème wahaab yi nag moom ni ko nit ñi xalaate daa gën a profond loolu ndax du lu tàmbali tey li wahaabi yi wax fii maanaam wuuteeg ahlu sunna wal jamaa ba noppi ne nun nooy ahlu sunna wal jamaa euh, tudde seen bopp ahlu sunna wal jamaa boo léegi di tabdiix nit ñi mbaa ñu leen di takfiir mbaa ñuy wax ne noog asalafu saalix ñoo dëppoo pas-pas ñeneen ñi ci des dëppoo ñu asalafu saalix dañoo wuuteeg saxaaba yi diw nangam yéefar la diw nangam mubtadi alxuraan sunna nun dong noo ko topp wala xeet yooyu lépp loo ma ci laaj rek mën naa laa génneel ci ña leen jiit ñu ko waxoon bu yàgg avant ñoom mbir mi tàmbaliwut ci ñoom euh, ay wax la yoo xam ne yii ñoom waxuñu lu bees dañoo fekk la seen salaf doon wax ñi leen jiitu woon ci ci lii ñu ne te amoon ci problème ak ahlu sunna wal jamaa ci seeni jamono moom rek lañuy ñuy répété waxuñu lu bees xëy na kay ñoom fas nañ fas nañ pas-pas boobu yàlla jox leen doole nguurug Ali Saoud ci taarix nguur ga jàppale leen ñu dem ba tuur ci ay deret ba gaañ ci ay jullit xëy na bu fekkee am na lu ñu wuuteeg ñi leen jiitoon lool la waaye jëmmi pas-pas yi moom lii ñuy wax ni fu ci ne amoon nañ ci asalaf euh, euh, amoon nañ ci ñu leen ci jiitu ñoo xam ne sax ba léegi ba fi may waxee yooyu ñooy seeni delluwaay téere yi nga xam ne moom la ñuy tudd di ca dellu ca bare bari am na ci ñooñ xeeti pas-pas boobu la ñu yoroon donte nag na ci ñun tuumaal ku ci mel imaamu ahmad ak ñenn ci asalafu saalih moom dañ leen tuumaal di leen wax loolu xam ne ñoom wax ñoom gëmuñu woon loolu euh, te loolu jullit ñi teel lañ ko remarqué ku ci mel ibnu shahin daana ci ay jamono ne dañoo tuumaal ahmad ne ne ñoo moom ñoo bokk pas-pas te bokkuñu pas-pas comme ibnul jawzi tamit doon na ko wax ne dañuy sosal ahmad loo xam ne ahmad fa sutoon loolu ba noppi wëlbati ne waaye minorité lañ boo xam ne toujours dañuy sonal ahlu sunna wal jamaa lii taarix la lii fii ñu toll nii naka jekk ni lañ ma sa mel fooy leen fekk ab ñuy doon boo xam ne dañuy sonal ahlu sunna wal jamaa wit di leen takfir di leen tabdiya lu leen koy wax xam naa téere ñi nga xam ne ñoo ñoo téere yi ahlu sunna wal jamaa ñi nga xam ne ñoo daan faral di wax ak gaay bi daay ci taarix ku ko liir rek xam li ma lay wax naka jekk nii lañ ma sa nekk ak jullit ñi moom doonul lu bees ba ci jamono yi sub kii ñoom ba jamono yi Muhammad euh, ba waa ji nga xam ne moo ne woon fële naj ga toujours noonu ñu nekkee julli ñi moom noonu lañ mas a nekkee ñoom du du du du du kuréel bu bees ay imaam yu bees la ñuy am rek mais pas-pas yi moom yàgg na. daanaka loo dégg ñuy wax fii rek man boo ma laajee mën naa la ko génneel ci téere boo xam ne dana jege junni at bañ ko bindeek léegi kon du pas-pas yu bees day pas-pas yoo xam ne ahlu sunna wal jamaa yàgg nañ koo xeex yàgg bind ay téere di ko radd. yàgg a wane ne ay mubtadia lañ yàgg a wane ne du pas-pas bu pas-pasu tashbih la wala tajsim ñoom it nii ñuy waxee ni lañ ma a waxee nun noo ahlu sunna wal jamaa ak noo topp sunnaak euh, gaa yi ay mubtadia la ñoo naka njëkk noonu lañ mas di def maanaam nisaa fikri aqdi bu yàgg-yàgg la boo xam ne tàmbaliwul tey waaye nag bu demee ba nar a jut jur ay fitna ci ay état fekk ay kilifa yoo xam ne boo leen tuddee mu yëkkati fitna état bi moo war a jël ay responsabilité am xam ne lii jëmut kër ndax mbir moom bu demee ba bay jur kuréel yuy jël ay jaasi di dal ci kawi e, jullit wala sax ñuy taal ay bomb wala ñuy fabi e, su songa ak fetal fu mel ni ñu defoon Mali ak ci yenn réew yooyu état bu ne sa réew ta tam tàmbalee jël benn empleur bi war nga caa a jëli matuwaay ba nga xam ne fa fitna jee juddoo yow dutoo ko nangu. koo xam ne seeni borom xam dañuy défendre genn nguur goo xam ne par famille lay toogee ñuy jaayanteeg moom boole ci. booleeg di ko défendre ci seeni téere euh, di ko jëm a dëgëral te buur dafa te loolu far par famille la wala euh, ku mag toog la wala wala lu mën a xew moom far par famille la de bu ñuy waxtaanee dañuy ba teg kenn waaye famille ci famille ngay bokk ngël bati ko di ko critiquer feneen te ngay nga xam ne bu ñu waxee da ngay xam ne ñii ñii ñooy seen i delluwaay ci loolu la ñuy défendre. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. di rafet lu baax itam kàddu yi nga xam ne moom nga yëkkati kàddu yi duñ ko tudde sax radd ndax ngóor si moom comme li mu wax xamu ko daanaka duñ ko tudde ne radd la waaye li nga ci leeral day lu am solo loo xam ne man jàpp naa ne dëgg la néew ma xamuñu waaye damaa jàpp ne ñun dëgg-dëgg li ñu desee tasaare mooy li nga xam ne moom nga wax nii maanaam mooy yi fi nga xam ne ca mbànjaxaan nga la jóge te loolu it damaa jàpp ne ci commerce tuuti da koy da ciy feeñ sax nga xam ne daanaka marchandise mu ñëw rek maanaam du problème marchandise mu tasaaroo ko waaye jëmmi yëf yi maanaam fa source ba fa mu commencé dale ba nga mën a wax ne lii maanaam marchandise mu baaxut la loola yow foofa nga xam maanaam foofa nga laal te lu bëree bëri ñun dañoo jàpp ne dañoo am ak ñoom jafe-jafe day firqa boo xamante ni bii itam dafa ñëw ñu réer moom mais du problème boobu maanaam problème mu maanaa tooke la joo xam ne wala lem la goo xam ne dañ koo teg boo jàpp ne lu ñu war a jëfandikoo la far am mbaam ñëw naan ca loolu mooy ak waxa biir maanaam lem gu mbaam naan mooy ak waxa biir dëgg-dëgg te oh, boo koy seen nii jëmmi lem la lay jox waaye boo ñëwee ba tiim ko bañ ne la mbaama ca naan da nga xam ne du luñ jëfandikoo loolu mooy ak waxa biir mooy boo leen séenee da jàpp ne ñu ñu war a mën a jaxasoon lañ dañoo amagu wute tuuti fekk dañoo baaxut maanaam dara baaxul ci ñoom seen cosaan boo ko xamee baaxuñ te dañuy yàq te itam kasaalika dañuy indi fitna man a jàpp naa ne li gënoon a mat a gën a dénoncé du problème mu dañoo am ak ñoom problème mu pas-pas dañoo wuuteeg ñoom dañoo nangam léeg-léeg sax nga gis koo xam ne ni muy interprété li ñuy wax mel ne léeg-léeg waxi Ahmed Lo wala waxi nangam fii la wax nii Sëñ Tuubaa fii la na fekk ñoom Sëñ Tuubaa daa jaar nii ñu jaar nee maanaam bokkuñu gis-gis bokkuñu xalaat ñoom ay max lañ ay tooke lañ ay lem lañ yoo xam ne mbaam lañ cee naan ñooñu nag jaxasook ñoom sax jàpp naa ne ëpp na te fitna jooji ngay wax nag man jàpp naa ne fii ñii nag daa mat sëkk nag loolu la ñu war a génne gën koo leeral maanaam ah, gën ko leeral adduna sëpp surtout senegal ñu xam ne fi ne maanaam stratégie yi ñuy teg di wane ne ñun dañ ñoo saaga ñu saaga leen nangam ak nangam ñu xam ne ñun amuñu ñuy saaga ci ñoom parce que ñi wax ne ay dañ leen di saaga ñooñu dañuy génn seeni téere di wax la ñuy wax bu dee fuñ juum ñu leeral ne nangam ak nangam wala yu mel noonu waaye amul lu ñuy saaga ñoom parce que ñoom kuy saaga xanaa seeni ndey ngay saaga wala seeni baay te seeni ndey seeni baay ñoom ci tasawuf lañ lañ lañ lañ nàmpatale ci lañ màgge kon ñoom boo leen di saaga foo leen di saaga bu dee ña ñuy wax ne ñoom ñooy seeni sëriñ ñooñu moom du ñoom gëmuñu leen sax far ñoom dafa am maanaa daal soble bu yàqu lañ maanaam loo leen mën a tudde daal lépp loo xam ne daal bu duggee ci mbir mu nëpp bu dee gerte la jàppal ne mooy gu bon nga xam ne fo jiwu woo ko tasaare du baax bu dee ab soble la mooy bu bon ba nga xam ne bu mu dugg yàq fa bu dee ak lem la it jàppal ne mooy gan mbaam ma jëfandikoo ba pare bu dee tooke moom mooy ja nga xam ne ku ko laal mu rey la loolu ala kulli xaalin mooy wahabi ak fu mu mën a doon loolu nag jàpp naa ne fuñ toll loola war a leer moo tax yii ñuy wax yëpp du garaaw parce que waaye ji li mu wax nii suñ mën dafa garaawul parce que affaire bi boo xamee fa mu jekki-jekki ñu ne fital ak fital jël nañ ko dóor nit mu daanu maanaam loolu du du du loo xam ne lu war a yéeme la maanaam pasen bañ jafare balub fetal ba ba mu mën a dóor bam ba mën gaañ foofu lañ war a dellu ba xam la ko defar ak la ko sos dëgg dëgg dëgg ñu doog a mën a wax na nag kon lay gaañ fa mu bàyyi ko foofu lañ war a lijjanti waaye jëmmi fetal dana raye wala ka ko yor bu ci dóoree mu daanu loolu moom yaakaar naa du loo xam ne nit ki war naa garaaw ci moom kon li nga wax ni rafetlu nañ ko lool muy la am solo wax dëgg yàlla jàngat boo xam ne bu riche la boo xamante ni bii itam nag jaraat na nag ñu jug war a jëlaat suñuy matukaay man dama yàgg wax ne di discuter ak wahabi bi ak di seq ñoom ay daba damaa jàpp lu mënta ñàkk lu mën a ñàkk la ndax amul benn suivi bu ci am loo wax ak ñoom ñoom bu la lañuy lañ la ñuy jàpp rek mooy li nga wax moom waxi mutasawif la moom baaxut kon ñoom daanaka mëntu ñoo waxal kon nag loolu jàpp naa am na beneen matukaay am na beneen taxawaay daal boo xam ne yaakaar naa waris na ko mën a taxaw di leen ko dénoncer di gën a leeral nit ñi ndax ba te Ahmed Lo fi ne manqué na ay attaque maanaam li ñuy leeral ci moom dafa des maanaam ah, lay problème ba dëgg dëgg nga xam la tax wahabi yii di saaga ak di waxal mag ñi lu bon ak di leen teg seen der lu baaxul daa war a leer ne ci Ahmed Lo la bàyyi ko Ahmed Lo mi itam la tax mu bàyyi ko moom mooy loola duñ dajj ne lii la wax si Ahmad Tidiane lii la wax naa déedéet maanaam ñëpp xam ci seen bopp ne la waral xale yii taxaw bay saaga mag ñi dafa am fu mu jugee mooy ci Ahmad loola jóge maa critères yii nag moom la teg ba tax ñoom ñu mën a sukkandiku di saaga mag ñi te ñooy soble yi nga xamante ni bii nag moom la wasaare moom mu yàqu mooy bu mag bu yàqu ba wesaare lool ñoom ñëpp fu ne mu dugal fo benn saako mu fas yéenee nag di yàq di dem rek laa kulli xaal kon ñu bañ a bu baax di